dalee nag jàmm ci leral point net ci xëtam gu njëkk tey rek daal di xëyee Serigne Cheikh Ndiémbe Fall rappel à Dieu Abdoulaye Wilane lui rend hommage ginnaaw rek ki nga xamante ne mooy génn àdduna di Serigne Cheikh Ndiémbe Fall di xalif général des Baye Fall moom nag moo daal di génn àdduna ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Wilane feddale njaalam ginnaaw rek communauté mouride bi nga xamante ne rek na nañu ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Ndiémbe Fall nekk démb rek muy xalif général de bay fal ki nga xamante ne mooy maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane moom rek dafa daal di euh, àggal xamante ne mooy njaalam jëmale ko ci euh, communauté mouride def na lu mu war def bàyyi ci bi ba dem ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Njëmb moom sax fekkante na fii ak ki nga xamante ne mooy euh, Cheikh euh, li nga xamante ne mooy réalisation de la grande mosquée de Touba ba tey mooy wax mu ne moom mën na doon itamit ki nga xamante ne mën nañ koo seet ci ndax lim ci na lu ci yoon bi moo tax rek day daal di daal jàll njaalam li nga xamante xamante ne mooy euh, communauté mouride yëpp ba noppi xalif général des mourides yi tamit di ko jaale di euh, suñu Serigne Serigne Mountakha ay ñaan rek jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñi gëm ak kulli taalibe rek ngir rek ki nga xamante ne mooy euh, Serigne Cheikh Njëmb yàlla daal taas ñu si barkeem loolu rek équipe Leral TV Leral point net yëpp ñuy jàlle yi tamit njaalam ko ci communauté mouride yëpp ak kullu Baye Fall ngir rek noppalom nekk Firdaws